mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun si rajo Rewmi FM euh, tey nag suñu émission ñu war ci dalal Mawlud Diakhaté ñu gën ko xamee si Pape Diakhaté euh, moom nag nekk adjoint ville bu Dakar ni ki tey nag moom la ñuy dalal daal di waxtaan ak moom ci li xam ni moom moo jëm ci émission gox bi monsieur le maire ñu ngi lay dalal jàmm ci émission gox bi. Euh, maa ngi leen di gërëm tamit di leen. di leen nuyu di nuyu personnel wu réew mi FM yëpp di nuyu auditeurs yi nga xam ne yëpp ñu ngi ñuy déglu Euh, di leen remercier ci opportunité bi ngeen ñu may pour ñu mën a ñëw waxtaan ak askanu Sénégal ci tolluwaayu réew mi ak euh, jafe-jafe yi nga xam ne ñu koy dund. waaw ci tolluwaayu euh, moomu sax la daal di waxtaanee yéen ñi nga xam ni yéen lañ fal yees ci mairie bu dakaar daanaka war ngeen fa matal léegi téeméeri fan te cent jours yi nga xam ni matal ngeen ko fa tey ci li nga xam ni moom moo jëm ci ville bu dakaar mën nañ jàpp ni liggéey bi fan la toll. Euh, jërëjëf question boobu vraiment dina sawar lool pour tontu ji ndax euh, comme ni nga ko ni nga ko rappelé ndax dañu dem élection locale yi passé laata ñuy dem ci élection yi dañu def campagne dañu def sax dox mbokk avant sax campagne bi dox mbokk la ñu def ànd ak euh, ci gannaaw Barthélémy Dias ñu ànd ñun ñëpp équipe bu yeewi askan bi au niveau département Dakar dem seeti as askan bi nemmeeku leen nemmeeku seen i jafe-jafe ak seen i bëgg-bëgg ak yi ñu jànkoonteel bon yooyu yëpp ñu waxtaan ceeg ñoom bu baax a baax am ci nag dégg-dégg aussi bi campagne bi jotee aussi ñoo gën ko feddali bi campagne bi jotee amul fu ñu dugul ci Dakar euh, dox mbokk bi rek presque mën naa ne moom la ñu continuer ci campagne bi euh, askanu Sénégal yëpp nag am porté espoir ci euh, la la coalition Yewwi Askan Wi te particulièrement à notre maire monsieur Barthélémy Toye Dias loolu moo waral ñu fal ko maire avant ñu bi ñuy laata ñuy fal maire nag askan bi am na programme boo xam ne moom lañu leen proposé woon. mooy ban programme. dellu ci waa muy programme euh, Dakar bi ñu bokk euh, Dakar pour tous euh, avec tous muy une participation participative et inclusive ñun ak waa Ndakaaru Ndakaaru programme bi doy leen ñu fal ñu def ñu maire. ñu fal équipe municipale bi nga xam ne tey moom la ñu pour liggéey askanu Ndakaaru ci biir programme boobu mën naa ne vole yi pàcc yëpp nag bu mu ci mënti doon muy euh, éclairage public di santé di éducation di infrastructure i pàcc yëpp boo ci boo ci jàpp am na ci pàcc bu am solo ci biir programme bi boo xam ni développé nañ ko ci euh, kon askan bi programme boobu lañ ñu falee te tey ci programme boobu tey ci la ñu nekk actuellement nii. lan ngeen ban ci secteur bu nekk buñ ci naree xayma. tey ci li nga xam ni moom moo jëm ci secteur yi ñu daal di si jukki secteur bi nga xam ni moom mooy culture ñu ngi ci euh, li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum biennale bi ba ngeen fa ñëwee ba tey yéen jéego ngeen fa def ci wàll wi. fi may tàmbalee rek ci loolu xam nga 100 jour néew na bari na ndax néew na maire bu mën a def 100 jour mën a def déjà un bilan. à à mi parcours te ñun tey mun nañu def un bilan boo xam ne sax ëpp na bilan à mi parcours ndax tey su ma la jàpp euh, suñ demee ci domaine éclairage public tey biscuiterie bi nga xam ni soriwuñu dem fa tey les rues biscuiterie artères yu mag yi tey ville de Dakar éclairé na ko. tey demal euh, cimetière euh, musulman de Yoff tey non seulement ñu ngi fa di pavé sur le plan des infrastructures pavage bi au complet mu ngi ci cimetière yi commencé nañu liggéey bi éclairage yu matal nañ ko euh, tey demal demal ci gox yu bari ci Ndakaar commencé nañu éclairage public bi tey sur le plan de la voirie tey demal jëppal Derklé demal Sicap Liberté tey ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu route ya nga xam ndax yow foofu ko fa bari tànk xam ni seen route yi yëpp ay nëre ay nëre euh, ay effectivement kàmb yu dul jeex moo am seen seen seen tali yi moo actuellement ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy réhabilité route dafa nekk ñu ngi koy réhabilité te réhabilitation boobu du yemuñu ci ñaari communes yooyu mais dañ ko dañ ko war a lawal ci Ndakaaru yëpp bu ñu réhabilité route yi ba pare nag soog a defar de nouvelle routes pour mën a faciliter l' accès euh, pour accès bi ñu mën ko faciliter euh, askanu Dakar tey boo demee sur le plan de l' tey am na 16 CEM tey yoo xam ni tey ñu ngi leen di réfectionner di defar aussi seen bloc sanitaire yi en même temps. yan ak yan la. Euh, boo boole ci Grand Yoff boole ci Parcelles Assainies boole ci Colobane. Euh, bari na yoruma list bi nii mais en tout cas am na 16 CM tey yoo xam ne liste nañu leen actuellement nii démarré nañu démarré nañu travaux de de de réfection yi aussi doté leen des blocs sanitaires yu mucc ayib ndax boo xoolee blocs sanitaires yooyu problème bu sérieux dans les dans le dans les établissements dans les écoles. boo xoolee euh, risque bi nga xam ne suñu doom ñu ngi koy encourir bloc sanitaire boo xam ni des milliers d'élèves yoo xam ne c'est des innocents peut-être âge la ñu toll boo yow boo fa duggee yow mi mag da ngay daw génnaat ndax manque d'entretien ndax ñàkk set yooyu yëpp ñu ngi ciy trouver de solution en tout cas daal pour te dire euh, aussi su le plan social ndax xam nga bu ñu njëkkee ñëw euh, déjà dañu débloqué plus d'un milliard ne ñu dimbali askan bi ndax gis nañu jafe-jafe yi actuellement nii les denrées de première nécessité gis ni mu flambé actuellement góor góorgóorlu le, le, le Sénégalais lambda peine à assurer la dépense la dépense quotidienne ba tax na bi ñu ñëwee déjà lañ njëkk def mooy ne nañu assister nit ñi ndax nit ñi déjà sonn nañu ñu débloqué un milliard def ko ay moyens de travail yoo xam ne nit ñi war nañ ci mën a daan seen doole ñu ñu ñu jënd ci lu mel ne ay cak-cak jënd ci lu mel ne ay tricycle ay permis de conduire ndax nit boo ko jàngalee dawal moo am permis mën dem wuti poste chauffeur liggéey ay permis de Euh, ay ay ay financement euh, ay euh, bon Auchan ndax tey ki nga xam ne tey toog na am jafe-jafe dépense tey nga jox ko bon Auchan mu dugg Auchan ak bon 25000 mën a jël lu ko neex je loolu ndimbal la bon pharmacie aussi ci ñi xam ni tawat nañu amuñu garab yu ñu mën a fajoo nga jox leen bon pharmacie boo xam ni am na pharmacie yoo xam ni ñoom lañu euh, collaboré boo xam ni bu ñu fa demee montant bi nekk ci bon bi ñoom bu ñu demee garab bu ñu bëgg dinañ ko dinañ ko fu mën a jël euh, te yemuñu foofu sur le plan social ndax euh, dañu lancé nañu véritablement des de financement jox ko jigéen ñi à de montant de plus de milliard encore te yamul foofu ni ñuy liggéey sur le plan des infrastructures euh, actuellement nii sur le plan de la santé boo xoolee Parcelles Assainies tey hôpital Maam Abdou moo fa nekk euh, euh, district la hôpital district Maam Abdou moo fa nekk tey am na ñu local boo xam ne mairie Dakar moo ko moom ñu débloqué déjà budget bi pour un hôpital de niveau 4 boo xam ne les travaux bientôt euh, la pose de la première pierre les travaux vont très bientôt démarrer. Euh, euh, ak euh, engagement bi mu jëloon la ci campagne bien sûr yooyu yëpp boo demee suñu programme Dakar bi ñu bokk boo demee gis ko ci biir ci biir programme bi ndax bëgg nañu loo xam ne waxoon nañ ko waa Dakar rek bu soobee ak yoon tamit ñu respecté ko ak ak yeneen ak yeneen en tout cas ñu ngi dox ci programme bi bu baax a baax a baax comme li ma la rek déjà li ma la limal rek def ko ci genre c'est pas évident ñun lii te incha allah je crois que li ci kanam mooy mooy mooy mooy dàq fi ñu toll. fan la mairie bu dakaar jëlee ay moyens ba mën a def loolu yëpp en un temps record. téeméeri fan comme ni nga ko waxee euh, wala da ngeen ñëw soppi mécanisme bu nekk foofu. waa mécanisme soppi nañ ko te xam nga euh, euh, mairie bu dakaar quoi qu'on puisse dire aussi n'est pas une petite mairie te budget bu Dakar aussi tuutiwul boo ñëwee engagement ak détermination. Euh, foofu aussi naa lancé benn appel askanu Dakar pour véritablement ñi war di fay impôt ñuy fay impôt ndax euh, liggéey yi yëpp ñu entamé bu nit ñi participer wul rek. bu bu ñu nit ñi dul participer rek du yomb suñu ñu liggéey ko ndax xam nga mairie ni muy doxee ci ay recouvrement lay doxee euh, euh, ñun nag foofu fas yéene ci taxaw bu baax a baax waxuñu nag dañuy fekk sénégalais bi nga xam ni ndekki tëna ko wala añ ko wala reer ko ñu ne ko par la force danga ñuy fay impôt ndax impôt ki dem ba di ko fay mooy ki nga xam ni mën na ko fay mais ki nga xam ni mënul fay impôt ki nga xam ni dundam day dafa jafe kooku impôt wàcc na ko euh, ba tax na ñi nga xam ne ñoo war a fay impôt ñi nga xam ne ñoo yor immeuble yi ñi nga xam ne ñoo yor yenn commerce yi immeuble mettre ko en location yor yenn commerce yu mag yi ñoo ñu véritablement ku ci bëggul fay dinañu véritablement taxawu la pour nga fay mairie bu Dakar la nga ko la nga ko amee pour mën ko dugal ci askanu Dakar ñi nga xam ne ñoo ko soxla euh, mairie bu Dakar euh, non seulement dafa coiffé les dix-neuf communes du département war leen appuyer mais aussi dafa am son programme personnel aussi pour les dix-neuf communes mooy comme hôpital ma lay wax ni déjà centre de dialyse ñu ngi koy aussi war nañ ko def à Grand-Yoff très prochainement aussi loolu yàggatul ak euh, yeneen structures sanitaires yoo xam ne aussi prévoir nañ ko ci au niveau de Dakar nga laaj ma aussi sur le plan culturel ndax tey boo xoolee au niveau du au niveau de Dakar man maay l'adjoint au maire chargé de la culture du tourisme et de la restauration des valeurs mais culture bi euh, pàccee la aussi boo xam ni am na am na solo am solo boo xam ni véritablement dama ne askanu Dakar sax xamuñu véritablement luy culture ndax la culture c'est l'identitaire de la personne la la, personne personne s'identifie de sa de, de la culture te culture dafa am solo ci ci ci doomu aadama ndax euh, doomu aadama day gis boppam ci culture culture am day wane moom fan la jóge cosaanam daf ci am solo te tey Euh, euh, ñu nga xam ni ñoo sekk culture boobu les acteurs de la culture li ñu naan le monde des arts de la culture boo xoolee muy monde bu diversifié. Ah. monde boo xam ni ñu ko composé dañoo bari te wuute waykat yi ñu ngi ci biir fecckat yi ñu ngi ci biir peintre yi ñu ngi ci biir euh, dessinateurs yi ñu ngi ci biir macha allah ñi ci nekk dafa yaatu bari nañu. Euh, ñooñu aussi yàlla xam yàlla def na bi euh, Barthélémy Dias ñëwee ñu fal ko maire bu Dakar ñu ànd ak moom ñu équipe municipale bi am na espoir boo bari boo xam ni porte nañ ko ci moom te c'est très normal ku gis ni muy doxee ni muy doxalee di nga am espoir ci moom ndax euh, liggéeyu ko tax a jóg. liggéey la bëgg te mu ngi ci liggéey ba tax na ñoom ñëpp actuellement ñu ngi ñëw ak ak ak i projet nee naa la tout tey jii rek ci waxtaan laa jógee ak l'association des cinéastes du Sénégal rencontré seen président ñi waxtaan ci benn projet boo xam ne war nañ ci liggéey ak euh, mairie bu Dakar ak yeneen fànn ci culture bi aussi ñoo xam ni euh, lu bari ànd nañ jéeg ñu ngi ci ànd ak ñoom ci ay liggéey tey boo xoolee biennale bi ñu ngi ko lancé depuis le 19 euh, le 19 mai bi passé pour un mois ndax le 21 lañ koy clôturer mais biennale bi boo xoolee programme off bi rek muy vernissage yi un peu partout à Dakar je crois que li nga gis ci biennaalu ren bi sax gëj na nga gis ko nga gis ko ci biennaalu. kon ville de dafa ñëw dekkilaat euh, euh, mbir yi soppi ko doxalin. mais bien sûr looloo looloo ndax bon am na luñ ñi fi nos prédécesseurs am na lu ñu def duñ ko nuyee il faut pas être aussi nihiliste. am na lu ñu fi def mais dañu ñëw pour la ñu def ñu jël ko yokk ko booster ko véritablement ba foo xam ne àggo foon mu àgg fa culture bi fi mu nekk nii ci ci dynamique boobu la ñu nekk ak culture bi moo tax boo xoolee xoolee biennale bi ville de Dakar tout le temps boo fa demee y a des activités de la biennale partout à Dakar aussi il y des expositions à Dakar partout et les autres artistes aussi son son véritablement en activité loo jàngat aussi bi gën a am solo bi ma jàngat ci biennale bi créativité bi màcc xel màcc màccu euh, xelu Sénégal sénégalais seen seen xel màcc na boo gisee œuvre yi ñu réalisé ci biennale bi véritablement da ngay xam ni askanu Sénégal seeni artistes ku leen jàppale véritablement fa artiste monde bi àgg tubaab yi àgg fa américains yi àgg fa sénégalais yi am nañu màccu màccu àgg foofu quoi xëy na moyens ak encadrement bi moo des pour ni mën a àgg foofu. waaw ñu ñëw ba tey ci wàllum secteur yi parce que itam dañuy gis euh, fii ci diwaanu Ndakaaru wàllum éducation yi yéen ci bërëbu jàngukaay yoo xam ne itam dafay soxla ñu daal di koy defaraat yéen a ngi ko wax léegi ci seen programme boo xam ne dañuy defaraat seize lekkool yi nekk ci biir euh, Ndakaaru ndaxam euh, yéen a ngi bàyyi xel loolu bu baax a baax ci euh, ndaw yi nga xam ne ñoom ñuy jóg di dem di jàngi ji ak fi ñuy jàmm bërëb yeeg ainsi de suite infrastructure yi fa war déjà lu ma la lu ma la fàtte sax li ma ci bilan bi déjà les étudiants en médecine tout dernièrement gis nga je crois bi ñu leen di attribuer euh, des bourses de perfectionnement en, en, en médecine euh, pour un coût de centaines de millions euh, bi mairie bu Dakar bourse bi muy alloué aux au au au Dakarois pour ñu jàngi à l'étranger ak ñu nekk fii di subir formation euh, ça fait plus de 3 milliards. kon xam nga mairie bu Dakar mu ngi appuyer véritablement euh, l'éducation et et et l'enseignement te foofu sax bëgg nañu ko dépasser c'est que actuellement nii comme li ma la wax rek dañu ci dañu teg ay premier pas. Euh, nekk ci tàmbali liggéey te li ma wax rek lii lépp ñu réaliser en 100 jour yow may wax sax xam ne c'est pas évident nga mën a réaliser en 100 jours nous on l'a réussi te euh, li ma la wax rek li ci kanam mooy mooy kii mais en tout cas enseignement bi moom prioriser la si ñun surtout. ndax les de secteurs les plus importants les plus importants je crois que mooy l'enseignement et et la santé. Mm-hmm. te loolu je crois que mooy pàcc yi xam ne ñoo ëpp solo ci suñu programme ndax nit day wér ba pare mën a taxaw. Euh, ñu ñu former ko jàngal ko yar ko. je crois que ñaari yooyu la mooy base bi nga xam ne moom la di démarrer pour mën a prétendre à d'autres choses pour mën dem ci ay culture dem ci lu ne mais il faut déjà nga wér il faut déjà ñu former la xamal la nga wér xam dafa am solo ci doomu aadama bi. loolu daf ñu may ñu daal di waxtaanee actualité bi yaa ngi ko dégg xiiroo beeg ŋaayoo bi ci diggante enseignants yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, autorités yi ñu euh, état bu Sénégal naam sax ab finalité mujj nañ ko am ci li nga xam ne moo jëm ci seen modernité mais est-ce que waroon nañ yegg fii yëpp. waa damay rafetlu tey dénouement bi nga xam ni am na. ndax je crois que euh, li ma wax rek énième fois dañu sauvé ñu ngi sauvé l'année l'année scolaire ak malgré euh, euh, remous yi nga xam yëpp amoon na ci biir année scolaire bi quantum horaire bi nga xam ne tey jii nii mën naa ne élèves yi atteindre luñ ko mataluñ ko ndax euh, perturbation yi nga xam ne dundoon nañ ko ci biir année scolaire bi kon maa ngi rafetlu déjà euh, indemnité yi nga xam ne état du Sénégal tey il paraît euh, mettre mi def na mise à jour bi mais effectivement je crois que man tout dernièrement je crois que am na benn sortie boo xam ni def naa ko dans les réseaux sociaux pour fi fustiger comportement gouvernement bi d'abord ensuite des enseignants ndax je crois que ñoom ñëpp ku ci nekk danga nga war a da nga war a euh, euh, euh, da nga war a demee xel état bi dañ ko fal jox ko tous les moyens dañ ko fal jox ko jumtukaay yëpp jox ko latitude mu tànn ku ko neex mu liggéeyal ko tànn ku ko neex ànd ak moom fay ko lu ko neex ñun Sénégal loolu la ñu jox pouvoir boobu la ñu jox état illimité kon je que eh, comme li ma wax léegi ndax léegi wax na santé ak enseignement li mu représenté. Mhm. ci ci askan ak ci doomu aadama. kon je crois que ñaari pàcc yooyu état waru ko néewal te gis nañu ne au Sénégal je crois que li xew ci santé bi loolu kenn du ko nettaleeti. Mhm. nit ñi di dee laxisme bi d'accord mais aussi manque manque jumtukaay yi nga xam ne hôpital yi manque nañu jumtukaay loolu aussi lu ñuy duut baaraam baaraam la lu ñuy joxoñ la bien que euh, personnel bi aussi doo comprendre. te sax banalement damay dama dafa am benn feebu muy fustigé. muy téléphone. actuellement nii kenn liggéeyatul ndax téléphone muy hôpital dañuy war li ñu dañu la ñu war a liggéey dañ koy bàyyi toog yor seen téléphone nekk ci ay whatsapp boo demee jàngalekat bi noonu day war a jàngale toog nekk ci whatsapp secteur boo dem man a dama ne feebar bi nekk ci enseignement. moo nekk ci éducation moo nekk ci secteur yëpp. laxisme bi quoi laxisme bi léegi nag loolu il va falloir que véritablement euh, li li suñu suñu maam sëñ sëñ Ahmed Tidiane si doon wax naan ndëpp national ku ci nekk day baax nga delloo si waat sa xel nga toog yeddaat sa bopp xool réew mi fan lañ ko war a jëmee ak fan lañ ko bëgg a jëmee xam ni réew mi mu ngi suux te ñun Sénégalais waruñu seetaan réew mi di suux euh, enseignants yi état bi euh, responsabilité am kenn weranteetu ko. dans dans cette situation mais enseignants yi aussi li ma metti ci seen taxawaay euh, ma ba ma fustige ko mooy dañu war a xool xool yeneen form de yoo xam ne mën nañ koo xeexee yeneen form de yoo xam ne mën nañ koo xeexee lu dul jël xale yi def leen chair à canon lu dul jël xale yi def leen otage lu dul jël xale yi def leen sacrifice ay xale yu xamul dara ñu jox la ay xale 6 ans 7 ans yoo xam ne dañu nekk ci buntu àdduna war a wut xam-xam war a am base xam-xam ndax je ak âge boobu eh, euh, philosophe dañ la koy wax nee ay 6 7 ci la nit ki di forger woo ses personnalités mois boobu yow nga jël xale bi nenoo jàngale wu ma parce que dañu war samay indemnité dañu ma ko war fay fay ñu ma ko wala sama sama lii wala sama laa xale bi nekk ci mbedd mi taxawaalu parents yi nga xam ni confié woon nañu leen ko ñoom bu ñu xëyee di wuti xale bi dundee yow nga war a téye xale bi formé leen ko nga sànni xale bi ci xale boobu ëllëg ñaanu ma ko yàlla bu safaanoo am nga ci part de responsabilité parents yi ko jur am na ci part de responsabilité société bi am na ci part de responsabilité état bi nga xam ne moom la ñu dénk suñu jumtuwaay suñu moyen aussi am ci part de responsabilité enseignants yi nag ñoo ci ëpp part de responsabilité ndax euh, dama leen ne d'accord seen combat bi c'est légitime te ñun ñëpp nangu ni c'est légitime ñun ñëpp ànd nañ ceeg ñoom mais euh, euh, même sax bu dee dañuy dem grève nañu yemale secteur yëpp jàngale wuñu public bu ñu jàngalee privé tey ñàkk njàngale bu dajoon tey ci réew mi école publique ak privé privé catholique ak école yi kenn jàngul ñu paralyser le système totalement mais kon très rapidement l'état va trouver des solutions mais par exemple bu dee jàngale am na fii amul fële mais euh, euh, c'est le cas des soucis nit ñi vont se dire que y a de problème léegi nag nu ñu ko mënee ils prennent tout le temps pour pour des négociations alors que booba les enfants vont en pâtir déjà résultats yi boo xoolee résultats yi tout dernièrement année bu ñëw résultats yi plus s'exprimer da ngay dem élève maîtrise élève licence à un étudiant à l'université il peut pas s'exprimer mu ngi noonu lakkin da lay non mooy li ma wax rek base boo ko ratee mhm. c'est fini da topp pratiquement ba sa cursus yëpp da lay topp mhm. topp li mën naa ne sax sa giiru dund te loolu am nañ part de responsabilité boo xam ne vraiment man dama leen ko doon fàttali te je waa que ils en sont conscients am nañu droit xeex te loolu bu ñu ko defoon nous les parents d'élèves ñun ñëpp nous serons avec eux ci combat bi man def naa si bay leen def leen sitting man tey ñoom bu ñu décidé woon tey ne dañuy dem def sitting devant le palais présidentiel man en tant que parent d'élève et j'ai invité tous les parents d'élèves à s'associer à cette lutte pour que seen gain de cause ñu ñu ñu delloo leen ko pour que droit yi nga xam ne am nañ ko ñu war leen ko ñu war ko rétablir ñu rétablir ko mais quant à sacrifier les gosses comme moom je ne peux pas être d'accord avec eux euh, ngi teg projet mairie Dakar fan la jëm. bon mairie bu Dakar euh, je crois li ma la wax rek dañu am benn programme bu tudd dakaar bi ñu bokk. Dakar bi ñu bokk nag day programme bu yaatoo yaatoo yaatu xam naa ni bu ñu ko bu ñu ko mm, temps mayaatee. Mm-hmm. mën naa ñëw spécialement ñu waxtaan ci ci ci Dakar boobu Dakar bi ñu bokk. mais ci lépp ça tourne ça tourne autour de l'humain l'humain euh, le programme tourne autour de l'humain euh, te dafa am solo mooy nit ki. actuellement nit ki foog ñu delloo ko dignitéem delloo nit ku honneur am loolu c'est important ndax euh, nit ñee tax ñu ñu ñu te ñoo ñu confié jox ñu seen destinée te c'est pas évident nit wóolu la jël la jox la c'est deniers publique sama xaalis a ngi nii sama xal sama xel sama xalaat jox naa la ko lépp jox naa la ko pour nga liggéeyal ma je crois que loolu ku mu doyul ba tax nga def loo mën ak loo mu je crois que dara doo doy fi ñu jëm nag mooy on nous a pour cinq ans dañu fal pour juróomi at. juróomi at yi 100 jour yi je crois que li olof yaay naan ku la dig ndekki. ku la dig añ bu la joxee ndekki sax xer war naa mën a daal. mais mais nag des na. non non déggoo li ma la wax nee naa la 100 jours yi soo ko évaluer xam nañu ne c'était pas évident xam nañu def yombul léegi te léegi euh, même pour aller beaucoup plus loin. defal defal comparaison ñun suñu 100 jours ak peut-être jëlal yeneen yi maire wala maire yu fi jaar nga def seen comparaison seen 100 premiers jours est-ce que ñun tey fi ñu àgg ñoom ba ñu defee 100 jours àgg nañ fa. kon mën nañu wax ne li li li Barthélémy Dias def ci 100 jours Khalifa Sall Wardini euh, mairie bu Dakar bi Barthélémy Dias jiite tey doublé na ko. Euh, euh, non bien sûr bien sûr te loolu taxoon aussi ñu fal Barthélémy Dias Khalifa je le salue au passage Soham aussi moo fa nekkoon de suñu prédécesseur moom tamit aussi dafa liggéey vraiment bu rafet euh, mais Euh, dañoo fal véritablement pour ñu def la lu ëpp la fa ñooñu def la fa xalifa def la fa ñu ko fa jiitu woon def la fa soam def te ci tànk yooyu lañ nekk te jàpp nañu ne en 2027 incha allah bu ñu présenter les Sénégalais un bilan dinañu ba dinañu présenter bilan boo xam ni ëpp na bu baax a baax présent bilan bi bien que seen bilan baax na mais bilan bu ëpp la nga xam ni ñooñu ñëpp def nañ ko fii ci seen passage au niveau de la mairie. ci biir Ndakaaru ba tey parce que itam euh, Ndakaaru ku ne Ndakaaru ne marché Ndakaaru ne marché Petersen marché yi bari na fa xanaa projet yi ngay xam ni yéen a koy sumb euh, marché yi ñoom xanaa bokkuñu ci. Euh, mais bien sûr mais xam nga marché yi. Euh, à part quelques marchés c'est des communes trans c'est des compétence transférées marché yi boo xoolee commune euh, commune plein exercice yi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko yor ñoo gérer seen seen marché Euh, marché Sandaga déggoon nga ci je crois tout dernièrement coow. waa diggante mairie bu plateau ak ak mairie bu ville. Mhm. xam nga ville dafa am euh, patrimoine foncier. ngeen ci mujjee. waaw non euh, mu ngi toujours ñu ngi toujours mais je peux te dire que effectivement domaine nu mairie bu Dakar la mais dinañ ko jaar aussi véritablement fañ ko war a jaar pour récupérer patrimoine nu ville Dakar de Dakar. Euh, def ci la nga xam ne ña fa nekkoon loolu la ñu bëgg loolu la ñu bëgg ñu defal leen ko fa c'est-à-dire réfectionné waat ko euh, ba Ndakaaru bien nekk marché la ci bi ci xolu Ndakaaru mais aussi mu mel na mu war a mel bañu indi bañu indi benn problème ci riverains yi bañu indi benn problème ci askanu Dakar en tout cas dañ ko jaar fu ñu war a jaar pour récupérer waat suñu suñu suñu patrimoine modernisation yi nag parce que euh, biens yi di campagne yi Barthélémy Diaz am na lu mu waxante ak ñi nga xam ne ñoom di yenn ci commerçant yi ci ay centre commerciaux yi nga xam ni war na fu mën a am ci biir Ndakaaru itam. waa xam nga yooyu yëpp euh, dañuy soog a falu mën naa dañuy soog falu yooyu yëpp politique yooyu yëpp ñu ngi ci. ndax euh, même tali des rues nous allons les désencombrer mais pas du genre désencombrement yi fi doon am à l'époque xam ni tey da ngay ñëw bale balayer la rue di les désencombrer suba. wala 48 heures wala 72 heures wala une semaine wala un mois après la fa nekkoon mën naa ne sax pire nekkaat nekkaat foofu ñun boo doxewuñu noonu. dinañ toog waxtaan ak les acteurs xool solution alternative bu ñu leen mën bu ñu leen bu ñu leen di proposer te boo xam ne jàpp nañu ne mooy gën ci ñoom ndax aussi. Euh, encombré Dakar salteel Dakar du njëriñu kenn du njëriñu ñun ñuy gouvernants yi du njëriñu aussi askanu Dakar ndax ku sañoon par exemple trottoir bi nga xam ne moo la tiim set wecc leer nañ Euh, nit ñi mën a dox correctement ndax tali pour oto la mais actuellement nii Dakar li ci xew mooy euh, nit ñi dañu obligé dox ci kaw tali yi parce que boo xoolee trottoir yi gargot yee table yi ainsi de suite ñoo ko occupé trottoir yi ba tax nit ñi pour ñu dox léegi dañuy wàcc te loolu du sécurité moo tax accident yi bari nañu yooyu yëpp politique la boo xam ne dinañ ci àgg euh, buñ ci buñ ci tolloo ñañu war a waxtaan ñëpp dañu leen leen toog waxtaan ak ñoom lañ leen di proposé dinañ teg proposé leen ko ñu dem ci ñu defar Ndakaaru ndax Ndakaaru il faut ñu nettoyer ko il faut ñu organiser ko il faut ñu arranger ko. ndax loolu euh, yéen a ngi ciy ñaax ñi nga xam ni ñoom ñoo di askan wi parce que itam euh, mën a def dara day fekk askan wi mën a adhéré wu ci li nga xam ni mooy liggéey bi nga sumb. waa xam nga euh, li olof naan xam ku bëgg akara il faut nga ñeme kaani on peut pas faire des omelettes sans casser sans casser des œufs ba tax na. tey mënuma euh, mënoo xëy rek tey jël table ji tax teg ci trottoir bi bëgg ko def sa propriété ndax moomuloo ko je crois que domaine pour nga moom ko soit da ngay am un titre foncier baa nga am un un baa nga am benn benn eh, eh, kii nu mu tëdd acte boo xam ni état moo la ko délivré waaw moom wane lii sa propriété la. waaw mais mënoo jël sa taaba rek teg ko fa ne lii fii man maa ko moom wala dama fi yàgg wala def naa fi vingt ans cinquante ans moomuloo ko mais moo tax ma ne ñun du ñëw jaay leen doole da amuñu doole bu ñu leen jaay. mais dañu waxtaan ak ñoom ci njekk ak teraanga te du ñu ñëw rek aussi ne la jugal fii wala jël say bagage sànni ko fële ñu ñëw waxtaan ak yow dinañ la proposer ndax dégg nga ñu ne dinañ defal ay centre commercial dinañ leen recenser ne na organiser parce que après ñoom bu ñu jugee dañu war a organiser Dakar Dakar dañ koy nettoyer il faut ñu nettoyer Dakar je vous l'ai dit tout à l'heure il faut ñu arranger Dakar il faut Dakar comme ville moderne yi ni ñu mel il faut Dakar mel noonu ba tax na touriste bu fi di dox sera à l'aise de marché à Dakar Euh, lu foofu dinañ fa àgg mais aussi li ma wax rek dinañ waxtaan ak ñoom vraiment ci njëkk ak teraanga te dinañ leen defal aussi ay solution et des propositions alternatives yoo xam ni ñoom ñëpp ña fa nekkoon aussi nañ ci gis seen bopp. waaw ah, dafa mel ni dama déggul ci mbir mi euh, programme yi sport mu tàggat yaram itam euh, stade yi naam état dëgg la dafay propulser defar ay jumtuwaay infrastructure mais ville de Dakar moom am na accompagnement bu mu mën a def ci mairie ci li jëm wàllu tàggatkaay yaram yi euh, même bu dul lool sax tàggat euh, tàggat yaram de manière vaste. déjà euh, info exemple bi ma la ciy jox rek monsieur le maire Barthélémy Dias bi mu nekkee maire Mermoz Sacré-Cœur déjà defar na fa benn terrain synthétique boo xam ni jeunesse su Mermoz Sacré-Cœur la ko jox la ko jox ñu ñoom ñoo sa gestion bi c'est même pas la commune mais c'est la jeunesse qui gère directement ce terrain actuellement Parcelles Assainies mais boo xoolee yenn espace yi parce que war nañ fa def benn syn deux terrains synthétiques ñu ngi xool yenn lieu déjà ñu ngi xool est-ce que hmm, du bokk ci terrain synthétique yooyu de ce fait nañ multiplier les espaces les espaces de jeu aire euh, de jeu yi pour que pour que euh, jeunes yi jeunesse yi les sportifs véritablement mën am des espaces yoo xam ne dañu fa mën a entraîner te loolu du yem parcelle euh, boo xoolee Grand Yoff je crois que gis nga gis nga stade bi avancé niveau niveau d'avancement bi presque ñu ngi ci ci finition yi Euh, aussi, on a prévu véritablement de faire des terrains synthétiques dans plusieurs euh, communes de la ville de Dakar. Mhm. volet sportif boobu moom aussi euh, am nañ ci pàcc boo am solo ci biir programme bi boo xam ni aussi euh, mettre nañ ko en marche. cadre de vie bi nag euh, wàllum alam bi itam nit ñi dañuy soxla génn mën a dem toog foo xam ne fu dal seen xel la foo xam ne fu am sécurité la surtout loolu ci itam c'est important ndax am yéen ville de Dakar yéen a ngi ciy bàyyi seen xel bu baax a baax. mais bien sûr déjà littoral bi rek déjà ñu ngi ci politique d'aménagement ci littoral bi même euh, en en en en surtout en collaboration avec les communes boo xoolee parcelle littorale bi déjà euh, je salue les gars au passage déjà ñu ngi programme benn journée set setal mais littoral boobu dañ koy aménager parcelle def euh, def euh, multiplier comment dire air air yi ma ma supposons des parcours sportifs comme nekk en face UCAD ak d'autres d'autres euh, lieux de distraction yoo xam ni ak même des terrains de jeu pour les enfants yooyu yëpp en tout cas daal dinañ ko dinañ ko aménager ñu ngi xool ban format lañ fay lañ fay def na accord ak les communes ni ma ko waxee mais quand même euh, littoral bi déjà dinañ ko aménager te aussi même euh, ci biir département bi aussi am na espace sax yoo xam ni euh, di prépare prévoir nañ ci aussi des infrastructures pareilles mm-hmm. yooyu aussi je crois que je crois que nañ ci àgg mm-hmm. euh, tout dernièrement maa ngi lay wax au niveau de la culture aussi on a rencontré un grand artiste qui fait des cascades mooy cascade jet d'eau yi mm-hmm. pour dire que ne yooyu aussi ñu ngi ci ñu ngi ciy waxtaan ndax aussi il faut que visage yu Dakar ñu ñu ñu waaw bien sûr mën a changer Euh, ñu mën a comparer Dakar avec les les villes modernes ko ñu ngi dem itam ci nawet ku ne nawet ne curage caniveau ndax euh, engage ngeen ay travaux yoo xam ne nawet bi bu ñëwee naam commune bu nekk nag yow yaay demal sa bopp wutali sa bopp jumtuwaay mais mairie ville de Dakar moo coiffé yi nga xam ne mooy jëm ci commune bi ndax ab jàppandal ñu ngi koy xaar ci yenn commune yi nga xam ne war nañ def curage caniveau yi. waaw curage caniveau yi xam nga euh, euh, kooku du domaine du domaine du domaine communal du domaine transféré kooku liggéeyu ONAS la. mais ñun xaaruñu si ONAS ndax euh, ñu ñoo nekk en en rapport direct en contact direct ak les population ba tax na lu metti population bi ñun lay ci ñun lay lay njëkk dal ci suñu kaw. Ah. mais ONAS eau usée canalisation eau usée ONAS moo géré moo ko géré ONAS moo waroon def normalement ay curage am ONAS moo waroon xool point bas yi trouver fa des solutions mais loolu lépp amul ndax boo xoolee Dakar y a beaucoup de points bas bi xam ni fa lañ dëkk boo xoolee parce qu'il y a plus de trois ou quatre points bas yoo xam ne ñu ngi parcelle nawet bi pratiquement dañuy sonn euh, mais boo xoolee actuellement je félicite certains maires au passage Euh, comme Jamil Sané déjà gis na travaux di curage yi nga xam ni commencé na ko ndax aussi effectivement je crois que avant nawet bi loolu bu li ñuy liggéey dañu ko liggéey avant nawet bi ñëw mais doo toog xaar ba nawet bi ngay ubbi ay ay canalisation di di curé ak teg sa sa hydrocureur mhm. pour bu ñu bu nit ñi euh, inondé nga nga pompe ndox mi waaw ba tax na def nañu curage yi mais n'empêche que point bu à la kuli alin ak ren njort nañ ne ndox mi dana bari ndax météo déjà prévoir na ko nee woon nawet bi dina teel ndox mi dana bari ça veut dire que on a des craintes ndax euh, boo xoolee changement significatif amul ci ci ci ci ci prévision yi ba tax na quand même taxaw nañu de pied ferme def nañ ñu ngi def curage yi aussi euh, bu tawee fu ndox mi bari it aussi dina dinañu am nañu ay pompes yoo xam ne aussi mettre na leen sur ba très rapidement ñu taxawu askan bi daal vraiment pour euh, seen i jafe-jafe gën a oyof. Euh, tudd nga ko Parcelles Assainies maire bi Parcelles Assainies itam nga dëkk tey euh, moom itam Jamil Sané fal nañ ko fa muy maire nga dëkk fa itam ban regard nga gisee commune bi ba mu jógee ci loxo Moussa Sy tàbbi ci loxo ki nga xam ne moom moo di Jamil Sané. waaw Jamil effectivement ñun ñoo jiite tey maire bu Parcelles Assainies. ndax euh, coalition Yewwi Askan Wi la ñu nekk coalition Yewwi Askan Wi fal ko euh, au niveau de la commune de Parcelles Assainies mu wuutu fa Moussa Sy waaw mais ñëpp xam nañ ne mën naa ne pratiquement euh, ndax on a l'habitude de dire qui gagne les parcelles gagne gagne Dakar et qui gagne Dakar gagne le Sénégal parcelle commune la boo xam ne dafa xaw complexe parcelle commune la boo xam ne moo gën a compliqué ci commune yi parcelle commune la boo xam ne moo gën a complexe ci commune yi euh, parcelle commune la aussi bon et c'est normal moo gën a yaatu ci commune yi gën a peuplé ci commune yi parcelle moo ëpp électorat ci commune yi ba na parcelle aussi mooy gën a naqaree gérer ci commune yi mais nag quand euh, gis naa ko ni muy doxalee ni mu tàmbalee liggéey bi bon ànd ak équipe municipale am ñun ñëpp ñu jàpp ci bon am naa yaakaar je peux dire que ne vraiment mu ngi sur la bon voie ma koy encouragé rek ma koy encouragé mu gën a euh, gën a ubbeeku ci nit ñi gën a yaatal waa woo ñëpp daal ànd ak ñoom ànd ak ñoom ci liggéey bi ndax liggéey Parcelles Assainies yombul mais quand même maa ngi koy encouragé maa ngi koy félicité bon gis naa ni il est sur la mm-hmm. gis nañ itam parcelle Parcelles Assainies euh, naam euh, ñu fay euh, pavage naam amoon na fa mais am na yenn xàll yi nga gis tey ñu ngi soppi xar kanam ñu ngi fay teg pavage ak nawet bi gis nañ itam axe bi nga xam ne moom moo jël ci pont émergence bi ak travaux BRT yi ndaxam taw bi mënul perturber foofu noonu. Euh, indi ay jafe-jafe. bien sûr bien sûr dans la mesure où déjà travaux yooyu déjà day bu ñëwee ndox mi fo fa ci nekkoon yoonu ndox yëpp déjà day bloqué ndox mi te bu ko bloqué day del soit ci habitation yi ba tax na euh, problème yooyu yëpp ngay wax mën na surgir mën na ñëw mais li ma wax rek yooyu yëpp yu ñuy séntu la ndax fi mu nekk nii li ñu naan gouverner c'est prévenir c'est prévoir ba tax nañ actuellement nii nous sommes sur le pied de guerre je peux tey euh, bu yàlla defee aussi mu taw ñaanuma ko yàlla moo am ñu inondé bien que du ñàkk moo am ñu inondé ba am ñu jafe-jafe seen kër automatiquement dañ leen taxaw ak yeneen bonne volonté yi nekk Parcelles ndax Parcelles aussi quoi qu'on puisse dire commune la boo xam ne ils sont très solidaires ndax mën naa ne les hommes politiques ya fa nekk même bu weesoo chef la coalition Yewwi Askan Wi tey bari na fa ay nit yoo xam tey bu ñu gisee nit ki askan bi nekk ci ay jafe-jafe ñu jug génne seeni moyens def ko ci véritablement pour soulager kon euh, loolu am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax mais daal que la commune teg na ay pompam curé na yenn caniveau yi Euh, euh, am ñu yaakaar que ne vraiment euh, y aura pas de de de de problème sérieux au niveau des Parcelles Assainies. Mawlud Diakhaté la ñuy dalal ci émission gox bi adjoint au maire la fële nga xam ne moo di ca ville bu Ndakaaru moom itam politique élection législative yi daanaka ñu ngi ci wàccaay bi ñu ci bari ñu ngi may nopp conseil constitutionnel ndax recours yi nga xam ne def nañ ko fa da jàpp jàpp ni euh, euh, valider liste Yewwi Askan Wi mooy solution bi gën. Euh, non xam nga xam nga conseil constitutionnel am na lu mu ñu habitué déjà conseil constitutionnel li mu ñu habitué mooy lu ko président sant lu ko lu arrangé président ok mu validé ko lu arrangé wul président xam mënu ci prononcé wu mu mu mu indi incompétence. te bu conseil conseil incompétent we su une situation sur un problème donné kon xaw ma Sénégal kan moo ci compétent ndax Sénégal euh, bu ñu amee problème problème bi lu mu série série série war na am instance suprême boo xam ni dina war a mën a joxe solution kon mën naa jàpp ne normalement conseil constitutionnel conseil constitutionnel amul problème boo xam ni war na ci incompétent problème ndax mën na incompétent cour d'appel mën na incompétent à des niveaux inférieurs mais pas au niveau au niveau du conseil constitutionnel maintenant ce qui se passe je crois que li xew ci listu Benno Bokk Yaakaar ñëpp gis nañ ko. yéen daal da ngeen mooy ci Benno Bokk Yaakaar du bokk. bien sûr dans l'histoire du Sénégal mosuñu gis liste ak ses suppléants mais benn list la ndax titulaires yi suppléants yi ñoom la ñuy ñoom la ñuy remplacer en cas d'indisponibilité. ñu supprimer les le ñu invalider les titulaires les suppléants pour valider les titulaires loolu fan fan c'est même pas xel sax dafa nangu loolu daf ko mënut a dégg quoi xel dafa mënul dégg loolu loolu la raison ne peut pas l'accepter ba tax na conseil constitutionnel bu lire véritablement le droit mënuñu gis lu dul la mu defoon contre euh, la commission la commission la CDE. loolu rek la mën a. DGE e, loolu rek la mën a la mën a reporté waat c'est-à-dire valider la liste titulaire de Yewwi Askan véritablement ñu dem jàmm ci ay élections. waaw loolu daal véritablement moom la ñu foofu la ñuy xaaree cour suprême te amuñu yaakaar que ne bu ñu bëggee jàmm ci réew mi dinañu indi. kon nañu dem feneen fulu foofu. solution bi mooy valider liste Yewwi Askan wi. mais bien sûr c'est mais mais mais c'est une mais c'est une condition non négociable valider liste dès l'instant que ñu valider la liste de Benno Bokk Yaakaar des titulaires de Benno Bokk Yaakaar amul beneen raison bu tax ñu war a mën a euh, invalider la de liste u Askan bi kooku moom on peut pas l'accepter liste Yewwi Askan Wi titulaire national day bokk ci élection yi àlakuli ay mënut a bañ bokk ci élection yi te Benno Bokk Yaakaar seen liste di bokk ci élection yi Hmm. kon droit daal ñu àtte ko ci buñ koy joxe. il faut lire le droit lire le droit simplement et uniquement on demande pas rien d'autre on demande laajuñu leneen lu dul ko mu lire le droit déjà comme que déjà yenn forfaiture yi accepté nañ ko rek nañ demee noonu ci élection te euh, c'est extraordinaire dans un état de droit je crois que. Euh, am na beneen taxawaay boo xam ni justice bi war na ko mën taxawee budul tax budul taxawaay bii ndax je crois que li ci xew DG ba ba léegi je crois que vraiment lu ñu mën a ñaawlu la quoi bien que am na ay problème ci liste yi mais yamale bi. Cour suprême la justice sénégalaise dafa war ay jàng commencé yamale véritablement sénégalais yi xam ne ñoo war a mën a yem ci yoon mais taxawaaye bi lu ñaawlu la li ñu leen di xaare daal mooy véritablement ñu valider la liste de. Yewwi Askan bi national ñu dem ci élection yi. seen euh, marche bi euh, préfet bi def leen ko gàntal ngeen jàppaat mercredi ñenn ñi sax seen leader yi ñu ne bi yoon am ba ñàkk da ngeen di tenir seen rassemblement. waaw ndax dañu ko dañu déposé dañu déposé déclaration de de marche euh, ñu ne am na ñu ñu fa jiitu les écologistes déposé seen déclaration. te boo xoolee véritablement lu nekk place de l'Obélisque xam ne loolu empêché wuñu woon ñu ñu tenir suñu suñu rassemblement kon dañu ne toujours préfet dynamique bi nga xam ne ci la ñu nekkoon euh, ci la ñu nekk ba tey c'est-à-dire euh, euh, nous nous nous nous empêcher nos droits d'exercer nos droits looloo tax nag ñu ne leen mercredi prochain jàppaat beneen date mercredi prochain qu'il pleuve qu'il neige qu'il vente nous allons organiser notre manifestation que le préfet euh, soit prêt à nous accorder ndax ñun on ne demande pas une autorisation déclaration de marché kooku c'est un droit c'est un droit que nous confère la constitution sénégalaise le droit à la marche donc le préfet ne peut pas nous ôter ses droits mercredi nous allons organiser notre rassemblement et nous invitons euh, le peuple sénégalais askan bi yëpp ñu ngi leen di woo ci rassemblement bi ñuy def mercredi à la place de l'obélisque parce que déclaré nañ ko te gisuñu benn raison boo xam ne préfet dina war a mën a gàntal suñu déclaration. bi yoon am baa ñàkk la. non impérativement yëgal nañ leen ko dañuy dem dañuy dem def suñu rassemblement léegi nii euh, on est on est on est prêt à tout et on est tout. Euh, gis nañ itam seen intercoalition bi buñ ko mënee tuddee noonu Yewwi Wallu ci yenn ci département bi loolu yëpp bëgg a pousser gouvernement bi que ngeen bëgg leen yóbbu cohabitation ndaxam euh, dina yomb. waa xam nga mooy les deux les deux principaux pôles de l'opposition muy Yewwi ak ak Wallu. te loo xam ne jéemoon nañ ko ci local yi. Mhm. yàlla def sottiwul moom ay manquement mujj mujjul antu. Euh, loolu rek la ñu la ñu la ñu tey suñu borom daf ci def euh, so sottal mais loolu rek la ñu reconduiraat Yewwi ak Wallu ànd ci coalition te effectivement ni nga waxee loolu lañ ci wut pour maximiser nos chances véritablement ndax xam nañ ne Macky impérativement il faut ñu yóbbu ko pour que troisième mandat bi nga xam ne sax mu ngi ci xel mi ñu génnee ko carrément ci bopp bi xamal ko ne troisième mandat mënta nekk pour que en 2024 mu organiser des élections libres et transparentes ñu mën ñu bëgg fal mu jiite leen ñu fal ko mu jiite ko ñi ci desem ànd ak moom ñu liggéeyal askanu Sénégal. mais est-ce que déjà c'est pas perdu d'avance bi ñu gisee frustration yi am ci investiture yëpp surtout yéen seen biir coalition muy Yewwi Askan Wi est-ce que loolu tey euh, mënul indi ay gàkk-gàkk ci seen seen ambition bi ngeen am. Euh, non mën na mën mën mën na bañ a gàkk-gàkk xam nga d'accord y a eu beaucoup de manquements coalition askan bi ni ñu tànnee y a eu beaucoup de manquements ndax euh, ay nit dañuy nawloontoo bu ñu àndee. Euh, war a jël ay décision je crois que ñu ko sekk dañu war a toog ñoom ñëpp ko ci nekk joxe ci xalaat mais bu ñaar ñett tëjoo jël décision boo xam day impacte ci ñi ci des ci bi buñ ci gisulee seen bopp effectivement dina indi ay frustration te loolu créé na ay frustration yu méttee métti biir Yewwi Askan bi ak ay jafe-jafe euh, euh, mais am nañu yaakaar que ne euh, xëy na am nañu yaakaar que ne d'ici ñuy dem ci élection yi ñu mën a recoller le maximum. Mhm. le maximum de morceaux. ba objectif bi nga xam ni moo ñu tax jóg ñu war fa àgg ñu àgg fa quoi. Mhm. mais effectivement on est conscient aussi de ça. il y a eu beaucoup de problèmes il y a eu beaucoup de frustration il y a mécontentement euh, mais mën na bañ a impacter aussi ci résultat bi nga xam ne ñu ngi koy yaakaar. naka ngeen di jëlee ji ñi mer génn toog ngañ yi wax ci doxalin bi yeewee askan wi dictature ma fa am benn groupe la boo xam ne ñoom ñooy décider décider ci lu bari euh, déjà rek image bi ñu leen koleel est-ce que dina neex a dindi. waaw li ma la léegi rek du yomb. du yomb ndax xam nga bu dee dañu nekk dañu nekk ci gox euh, man ma gën légitime ci gox bi ñu jël keneen ñëw fal ko mu bëgg ma jiite ci gox bi dafa metti loolu loolu lu metti la lu naqaree nangu la ba tax na loolu dafa créé frustration yu bari je crois que gis nga ce qui se passe à Thiès euh, ak le docteur Babacar Diop même avant loolu coalition bi bi liste départ liste nationale bi mu génnee les dix là intégrité sëñ Mansour Sy Djamil je crois que am Sénégal amul kenn ku koy naataableeti euh, Cheikh Bamba Dièye noonu mais gis nga déjà ñoom automatiquement dañu génn fustiger euh, taxawaayu taxawaayu coalition bi euh, mais teewul tey ba tey ñoo ñëpp déggoo kenn ku leen ne génn naa coalition bi kenn démissionné wul ñoom ñëpp ba tey ñu ngi ci biir ci biir Yewwi Askan Wi. mais est présence bi ñuy war a am ci biir coalition bi amul benn ralenti bi mu ci am. waaw bien du duñu mooy li ma la wax rek du ñàkk ndax nit euh, boo gisulee sa bopp ci ci ci dara moo ndil la moo ndil la euh, naqar waaw dina am taxawaay boo xam ne di ko taxaw mais dama ne jàpp naa ne d'ici ñu dem ci élection yi comme que ay kilifa lañu ay leader lañu euh, war ñu mën a toog waxtaan xool recul le maximum de morso pour que ñu mën a atteindre objectif bi nga xam ne moo ñu tax a jóg ñun ñëpp quoi. dégg nañ Ousmane Sonko mu ne pré campagne bi mën nañ ko dem euh, doore Fouta déjà est-ce que du provocation yi déjà yu muy commencé di indi. mais si boo déggee mu wax loolu tey xam na ni Fouta. li nga xam ni mooy euh, mooy grenier wu président euh, Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar. Eh, ndax nee nañu mooy seen euh, propriété privée. titre foncier seen foncier terme exactement moom la utiliser. Mhm. léegi boo déggee mu ne Fouta dafa leen xamal ne ñoom titre foncier ba ñu amoon sax ñàkk nañ ko ndax tey Fouta googu fa am moo doon seen yaakaar yëpp fa la nekkoon tey Fouta ñoo gën a sonn ñëpp. maatam bu ñu demee ba naan insécurité alimentaire bi nga xam ni mu ngi ñuy gerte tey jii nii euh, localité yi gën a vulnérable maatam ci la bopp te maatam véritablement mësu jox bopp. njiitu réew mi nga xam ni kon tey yi nii Fuuta ñoo gën a ëpp jafe-jafe ñëpp loola tax euh, ñu xamal ko c'était juste pour lui dire que titre foncier bi ñu amoon ñàkk nañ ko léegam Fuuta la ñàkk nag wax ma laak nag le reste du Sénégal waaw ci actualité bi gis nañ njiitu réew mi euh, dem fa fële nga xam ne moom moo di ca Russie en tant que président Union africaine bëgg a fay daa lu rafet la de ci image yu Afrique mais bien sûr loolu diplomatie loolu dañ koy dañuy dañ koy dañ koy louer dañ koy saluer euh, diplomatie sénégalaise euh, tey ak moo ci gagné te damay tàmbalee ci sëñ suñu xalif général euh, day ñaseen sëñ Maay Ñas tey li mu def Afrique di ko rafetlu li mu def Soudan Darfour Afrique di ko rafetlu le monde entier di ko rafetlu ONU félicité ko ñëpp félicité ko loolu du ndamam rek du ndamu Euh, waa Kaolack du ndamu ñeseeni rek loolu ndamu Sénégal la ndamu Afrique la mhm. tey wane nañu Afrique que ne tey jii am nañu ay kilifa yu mat sëkk yoo xam ne jafe-jafe lu mu rëy rëy rëy biir Afrique ñu euh, euh, benn le président américain Joe Biden mhm. di ñëw di toog wala Macron wala keneen ak kenn di ñëw di régler suñu problème tey am nañu véritablement des personnalités yoo xam ni lu jafe Afrique am jafe-jafe yu ñu am war nañu mën a toog régler ko Sénégal nag loolu ñun sax tey dañ ci dañ ci war a gën a fier ñëpp tey wane na ne réew mi tey ñun am nañu ay kilifa yoo xam ni vraiment amul ñenn ñu leen di wecce donc vraiment ñu ngi remercier xalif bi di ko gërëm di ko féliciter di ñaan suñu borom vraiment mu bàyyi ko fii. Uh-huh. te yii su ñu xool ci exemple vraiment. Uh-huh. Euh, perpétuer ko quoi ci yeneen gox yi ak yeneen secteurs yi nga xam ni des c'est des foyers attention tension. ok jeexale koog suñu mbokk euh, catholique yi di waajal euh, pèlerinage ngin ñaari at demuñu war a dem foofu ni ki ren ji ban message nga am bi nga xam ni yaa ngi koy lancé à l'endroit de la communauté bi nga xam ne toog na ñaari at euh, dem ñu fële nga xam ne moo di ca Popenguine. waaw di di ko di ko di ko rafetlu rek effectivement namoon nañ ko. ndax je crois que la marche de Popenguine euh, symbole la quoi symbole la ndax waxuma au-delà du Sénégal Gambien yi Guinée-Bissau euh, les les jeunes chrétiens viennent de partout. Mhm. pour euh, pour aller célébrer cette cette pèlerinage. Mhm. marial de Popenguine xanaa ñu leen di ñaanal rek ñu àgg fa ci jàmm ak salaam ñoom ñëpp. Mhm. ñaanal askanu Sénégal te xam naa ni moom la ñuy def ndax moom la ñuy yàgg di def moom la ñuy mës def. ñaanal Sénégal te lépp luñ fa ñaan suñu borom nangu ko def ko ngëneel Sénégal def ko ci ab jàmm ci àdduna bi def ko jàmm ci Afrique. Mawlud Diakhaté ñu lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ñu nga nangoo suñu invitation ñu doon daal yi waxtaanee ville de Dakar ak yenn projet yi nga xam ni déjà entamé ngeen ko en tout cas ñun suñu wàll bopp am nañ contentement mbégte gu rafet lool euh, ba ñu ñëwee wuy si waxtaan wi. Euh, maa leen di gërëm man tamit di leen di leen remercier ci invitation bi ni ma waxee woon ci tàmbali gi euh, ndax opportunité boo xam ne tey permettre nañu tey ñu mën a waxtaan ak askanu dakaar wax ak askanu Sénégal ndax comme ni ma koy woon dakaar dañu fal jox ñu ay responsabilité jox ñu ay moyens pour ñu liggéey leen ñu xamal leen ne ñun mindaanu askanu dakaar lañu te ci lañu fas yéene dox juróomi at yi te jàpp nañ ne juróomi at yi bu jeexee ni leen présenté bilan boo xam ni euh, y aura pas véritablement à nous renouveler leur confiance nga xam ne leen di présenté nañ leen présenté loo xam ni maire mosu leen ko présenté au niveau de la ville de Dakar. di ko sant di ko gërëm bu baax a baax gërëm Léopold Mendy bi nekkoon ci xarale gi jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité di ñaanal rek pèlerinage yu jàmm suñu mbokk catholique yi nga xam ni ñu ngi ca diwaanu fële nga xam ne moo di ca diwaanu Popenguine jërë ngeen jëf.